waaye marché yi da gis jigéen joo xam ne am na jigéen ñoo xam ne xam nga fan lañ fonk diggante fii ak fii image nii comme maman Virgile maman Virgile de boo boo nee ñoret tubay ci day mel ni ku taw tawte xam nga taw ke sa fii rek moo xuus koo xuus ku day mel ni ku maman Virgile moom barke Allah di fàllu mbàkk ku ko takk <laughs> guddi nga koy fas moo tax day tas rek du hydraté ay xottu daf koy hydraté jàpp ay xottu rek mu mel ni ay waasintóor nga ne naata yab tubay rek départ ay xottu daf koy hydraté waaye maman Virgile maman Virgile ku ko takk amoon maman Virgile mu war a def simis de nuit wala deux pièces ba woon jëkkër ji ginnaaw jëkkër naan ko kii ma taxoon ak kii ñu ma indi du benn jox leen ma sama warugar fase naa la xanaa man mii di patron buñ ko bu waree labat rek ma dugal ko ci piling gi damay foo rek ba teg bëri ko piling rek na ko ci yàggu daal di ko ci bës bës ko ci bës ko ci dix doo doog dindi nga xam ne bu toogee trois jours xott si day daal di tireeku day tireeku rek mel ni wëñ di tireeku maman ah yàlla baax na waaye defaraatal sa toogaay de mama xam nga xeesala mooy lan mu mel ni ndox moo mu taw te ba nga xuus xam nga fii da kay taax fii fii la xeesal si yam fii fii ak diggante fii maman Birgel diggante fii ak fii xalaatu koo xeetal moom kay diggante fii day ñu lekk day ñu lekk day ñuul ay maman xam naa ne